di rek askan parce que fi ñu toll tey euh, au contraire mi ngi def progression nank nank. te loolu ñun d'abord ensuite ndaw parce que ndaw ñi population bi jigéen ñi tamit ku nekk rôle bi joué ci askan pour que ñu gën a dajale euh, parce que combat communautaire te loolu communauté bi ñoo ko war a jël en charge bu ñu wax communauté nag jigéen moo ci jiitu ndax mooy mooy jur mooy yaay ndaw ñi ñëw ak borom kër yi kon nag loolu euh, dañ leen di dénkaat combat boobu parce que gis nañ ni dañoo xaw a bàyyeeku tuuti ci xeex bi léeg nga romb nit du takk masque boo takkee masque sax danga koy yéem euh, plage yi tamit gis nañ ni suñu plage bii di mali Malibu ndaw ñaa ngi fay dem wajur yi nañu téye doom yi parce que xale yi amuñu droit dem non seulement di sangu fi parce que plage bi dañ fi téré sangu mais di rassembler wu rassemblement yi tamit dañ ko téré buñ ko wul won sax fébar bi interdit na rassemblement kon euh, ñu ñaan rek ñu gëna farlu xam nañ ni situation bi fi am musul am ci aduna danaka donc lu lo xamanteni lu inédit nañuy d'undu kon il faut mu laaj ay sacrifice il faut mu laaj ay effort kon nañu gëna a dolli sacrifice yooyu gën a dolli effort yi pour que vraiment feebar bi jóge fi définitivement